waa liñ ci bëgg mooy dañoo jàpp rek ne ñaari article yi ñun euh, suñu kuréel yi nga xam ne muy ñaar fukki kuréel ak juróom yi projet bi di accompagner ñoom ñoo ko tànnal seen bopp bi ñu ko tànnee nag ñu gis ne ñaari article yi jar na taxawaat ñu waxtaan ci pour mun a fexe ba nga xam ne xale bu jigéen bi balaa nu koy mayee mu sëy mu dem ci fukki at ak juróom-ñett ndaxte code de la famille du Sénégal dafa ne fukki at ak juróom-benn war na noo mën a mayee xale bu jigéen bi waaye xale bu góor bi moom fukki at ak juróom ci yeneeni instrument yoo xam ne yoo xam ne au plan international la wala yi nekk ci niveau Afrique daal di ne euh, yooyu dañu ne fukki at ak juróom-ñett moom mooy lay âge bi nga xam ne xale bu góor ak xale bu jigéen war nañ ko see mën a maye ñun tam ñu nekkoon nag nañu yemale xale yu jigéen ñi ak xale lu góor yi loolu la ñu bugg loolu moo tax ñu ñëw fii bugg waxtaan ak député yi ci loolu wax leen nag li tax ñu bugg loolu parce que dañ koy am fu ñu koy teg ndaxte dañ koy teg ci xalaat boo xam ne ci wàllu yoon Euh, dinañ leen wax li tax ñu bugg ko ci wàllu ni nga xam ne moom la société di doxee aussi dinañ leen wax lu tax ñu bugg ko buñ demee tam même ci wàll bi li diine bi nga xam ne ñun ñëpp dañu am lu ñu gëm loolu aussi war nañ cee mën a waxtaan ñaareel bi moom mooy article 196 bi nga xam ne dafa ne pàpp ji rek moom moo mun a taxaw reconnaître doomam te ñu gis ne bari na ay góor yoo xam ne dañuy def seen pexe ba pare rocceeku dem taxaw fële léegi nag ñu ne est-ce que xale boobu aussi dañ ko war a bàyyi noonu rek ba du xam pàppaam ñu ne ah kay war na noo mën a tamit ñaan ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu yoon ak nguur gi fii ñu daal di ne yaay tamit war na mën taxaw se wax ne kii mooy papay doomam ñu topp loolu ba xam ndax dëgg la wala dëgg ñu mun a jox xale boobu aussi chance bi ñu may xale bi juddu ci mu sëy loolu moo ñu fi indi tey ñu war a waxtaan ak ñoom waaye ñu ne duñu ñu yem ci député kese dañu boole député yi ak ñi nga xam ne ñooy maire yi ndax maire yi tamit ñoom ñooy takk sëy yi ñoom ñoom ñooy joxe kayitu judd yi kon ñoom tamit war nañu gën a xam lii ñuy waxtaanee nii lan la ndax ñoom tamit ñu gën ñu ci mën a jàppale te ñoom ñoo nekk ci biir communauté yi di dund ak ñoom di yeewandoog ñoom kon ñoom tamit seen taxawaay daf ciy am solo. xanaa di di di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw seet si ñu fii ci assemblée nationale pour que ñu càmbar mbiru sëyu xale yi ak euh, ñi nga xamante ni suñu juddoo dañu leen di bodd ci turu papa loolu dañ ciy kontaan lool tax dañ ko war a teg ci table bi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ndaw askan wi dinañ ko teg ci table bi waxtaan ceeg réew mi bu ko defee nag code de famille bi nga xam ni am na ay fukki fukki at yu bari daa ñu xool naka lañ koy càmbaree naka lañ koy réviser bu ko defee yi nga xam ne coppite yi nga xam ne aaju na ci ak fi jamono toll ñu daal di ko ciy def